هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen talibé yi من ngeen di leen wax ne ñun ak yéen dañoo ànd war a liggéey loo xam ne euh, luñ bëgg a defar suñu bopp duñ ci yaakaar kenn comme lu mel ni fond bi def ak euh, yu bëree bëri surtout àggali école bi euh, loolu yëpp dafay dellu ci li nga xam ne suñuy bëgg-bëgg yi ñu bëgg a def pour suñu pays yi ñu bëgg a def pour taalibe yi ñu bëgg a def pour Baye. yépp bu boobaa dinañ ko def te ci sonn te amul looy def di ko def ci sa yoonu sëriñ ngir yàlla te yàlla du la delloo lu ëpp loolu mu benn sikk maa ngi leen di wooye yëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi ndigalal bàyyi la ah ndigalal maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci bàyyi maa ngi leen di xamal ne fon bi ndimbal la pour taalibe Baay yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wane ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond bi su ko defee yokk googu nag feeñu waayam yi bëri nañ ah, am na lu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk ak bibliothèque bi ñu ñuy tabax ci la bokk ak itam yeneen ñuy gént ci turbine beeg baye beeg yooyu yëpp am na ñuy gént yoo xam ne bëgg nañ ko defaraat te dañ koy defaraat ci kaw xam-xam ci defar boo xam bu ànd ak jamono la bu dëppoog jamono la loolu yëpp fond bi moo ko moo ko bëgg a def donc bon dimbalanteeg fond bi mooy yaa ngi dimbale sa bopp mais yaa ngi dimbale doomu adama itam doomu adama ci kanam yaa koy dimbale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 comme khalifa khalifa bu ngeen ci delu gannaaw wax leen ma ko danaa ko taxawee ak yéen yal na yàlla barkeel fond bi yokk ko xaalis may ko xaalis bu bëree bëree bëri ba li mu bëgg a def yëpp mu def ko. Excellence monsieur le président de la République Macky Sall démb rek moo ci mujj ci conseil des ministres bi nga xamante ni tàmbali nañ ko mooy conseil des ministres bi njëkk ci gouvernement bu bees bi mu taxawal. ci biir waxtaan wi mu ngi ñu ciy fàttali taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko am ci gàmmu dañu fàttali tamit ni taxawaay bi ñu ciy am war koo ànd ak service su état bi yépp nañu fexe ba li nga xamante ni moom la askan wi di xaar këru diine yi di xaar ci état bi ñu ànd kook ñoom bokk liggéey bi def ko ci ni mu gën a muccee ay kon président ku ne xam na solo si mu jox kër diine yi looloo tax bi mu nekkee ci bopp réew mi ba tey ku ne gis na liggéey bu rëy bi mu def jëmale ko ci kër diine yi mu am programme bu mag mu doon programme de modernisation des cités religieuses ba tax na këru diine boo dem tey di nga gis li nga xamante ni jëmmal na ko fa ci li nga xamante ni daf leen di jàppale ci wàllu diine niñ koy dundee bëggee ko ni ndaxte Sénégal ku ne xam na ni dëkku diine la dëkku mbaax la waaye dëkku jikko yu rafet la ba tax na président loolu xam na ko xam goo xamante ni naka jekk ci loolu la ma sa nekk waaye bi mu ñëwee ci bopp réew mi ni mu ko mandargaale mooy jël kenn koo xam ni dafa nekk ci pale bi ni ko dama bëgg nga waral ma këri diine yi xool ma li nga xamante ni war nañ ko fa mën a tàbbil ci liggéey ba lépp loo xamante ni mën naa gën a yéwénal doxin wi ak nañ koy àndeek ñoom ci jaamu yàlla ñu gën koo mën a def kon loolu ci la nekk ci loolu lañu sant ñu nekk ci loolu it la sant service su état bi yëpp ñu nekk ci réunion bi nag damay rafetlu bu baax ni nga xamante ni tëddee na ko diggante service yi nga xamante ni ñoo féetewoo ci état bi gouverneur am liggéey bu am solo gouverneuru Kaolack am liggéey bu am solo bu mu ci jot a def laata ñu yegg si fii mook préfet waaye di rafetlu ak di euh, saluer présence au président conseil départemental ak maire Kaolack nga xamante ni ay démembrement wu état bi lañ liggéey boobu ñu bokk ko ànd ak comité d'organisation des manifestations et des activités de la Fayda ñu koy wax COMAF ñëpp xam seen taxawaay ci biir COMAF ñu ràññee ci ay kuréel yu banqoo banqaasoo ci moom waaye tamit am ci taxawaay bu rafet te am solo leeral nañ léegi ni bàyyi Médical gis nañ liggéey bi ñuy def ak engagement ak détermination bi ñu am te mbooleem médecin ak pharmacien ak infirmier yi nekk ci biir fayda bi tey liggéey jëmale ko ci loolu seen taxawaay di mat sëkk diggante gàmmu ak gàmmuwaat bi ñu saytoo nag mbir mi xool ko bu baax gis nañ ni li ci ëppoon solo ci liggéey bi jàll na ci suñu ginnaaw liñ ciy dëgmal nekk ci nawet bu jeexagul même bu ñu njortee ni mi ngi ci cat li am na loo xamante ni dafa laaj waaj taxawaay ak tamit euh, gunge dégg nañ bu baax ci wàllu euh, hydrocureur yi ak pompage yi taxawaay biñ si war a continuer di am ba bu ñu yeggee ci bis ba gan yi nga xamante ni dañoo bawoo feneen fudul Medina bàyyi waaye ñi nga xamante ni tamit ñooy dëkk yi te di leen dalal ñu mën a àndandoo def gàmmu bi nii ko sëriñ bi fàttalee léegi ba lépp jàll ci yoon ba gàmmuwaat ga su ko defee ñëpp mën a delluwaat seen ay kër tey séentu te amuñu sikki sàkk ca ni loolu sans borom dina ko nangu ndaxte waxu Baye di waxu Cheikh Ibrahim ñas Baye mu waxal ko boppam mësta ñaan dara loo xamante ni ci guddi gàmm yàlla gantal na kon bërëbu gàmm waay la waaye bërëbu dem gaaw njëkkante wuti njariñ la kon loolu ñu ngi koy rafetlu te amuñu sikki sàkk ni lépp luñ fa ñaan suñu borom dina ko sotti mu doon yiw doon sutura doon teranga dana danañuy danay métti waaye du ñuy jaaxal ndax euh, bésu bés bés bi ki ko moom moo tax bés bi Seydina Muhammad moo ko moom donc sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne nii jaaxal na ci nit rek dana faral di sotti wax danañuy jaaxle waaye du ñuy tiit tey jii nii nag moom fi mu toll ci digg nawet bi mooy point bi nga xam ne nii ah, euh, xaw naa ub bopp euh, lépp loo xam ne nii nag war nañ ko cee def def nañ ko waaye kenn xamut tam euh, kañ lay tawaat te taw tam kenn mënu koo bañ ndax comme yërmande la loolu bokk na mooy point bi nga xam ne nii euh, bokk na ci point yi nga gën a jaaxal li ci CRD yi ngay gis CLD yi ak CND bi ngay gis ni euh, sécurité ak démembrement yi mu ànd ak daanaka moo ko gën a wundu lépp luñ fi def yeneen yi ngay gis assainissement hydraulique yooyu yëpp baax na waaye sécurité bi daanaka moo gën a tax ñu ñëw fii Euh, suñ ñëwee nag ci état maanaam nekkut rek sax di di ay taalibe mbokk taalibe yu dajaloo waaye ay citoyen yu dajaloo rek maanaam euh, su boobaa dafay nekk devoiru état pour mu sécuriser leen teg leen ci conf ci ci euh, ci confort waaye alhamdulilah loolu mosuta mosuñ cee ragal premier ministre ministre de l' intérieur exposé na ko fii nii Kaolack dèjà dafa nekk ci zone boo xam ne ni sécuriser ko jafewut ndax euh, camp d'entraînement yi camp de formation yi fa nekk ak tout waaye même ci biir gàmmu daanaka tous les démembrements ci police ak gendarmerie ak yeneen façon police yi sol tenue yi du sol tenue maanaam ñoom ñoo amee loolu noonu te ki leen di ci boppam tam di président commission bi ko amee mu ci boppam colonel la colonel colonel la ci ci armée bi. di ndokkeel mbooleem membre gouvernement bi di ndokkeel tamit képp koo xam ne rek yàlla may na la nga am taxawaay. jàpp ci bés bi nga xam ne gàmmu yoon ci al muhammad sallallahu nga xam ne nabiyu rahmatillahi yonent yonent yërmande la yërmande la tim pour àddina yépp kon yërmande googu mbindeef yàlla yépp ci lañ bokk ci li gën a matale nit ñi ci li jagoo jullit ñi ci li gën a jagoo kon bés la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk bés la ki nga xam ne moom la yàlla la lu may nga nekk yërmande pour àddina yépp indi ay jàngat ay jàngale yoo xam ne ñun tey ci Sénégal ñu ngi sant yàlla bu baax lu bari luy xew ci sous-région bi bu ñu ci yàlla musalee yàlla ak gàmmu ak mag ñi nga xam ne ñoo doon gàmmu ñu jàngal nit ñi naka lañuy ñuy bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa naka la ñu amee xol yu yaatu pour xool ci jaamu yàlla yi jëflanteeg jaamu yàlla yépp ndax boo xamee ne sa yonentu yërmaande la pour àddina yépp kon yow tim loolu boo ci seetloo rek da nga xam ne yow da nga war a nekk yërmaande pour àddina yépp mu nekk occasion boo xam ne tim mag ñi moom lañ doon exploité pour jàngal ñi nga xam ne demuñ ci daara ji toog di jàng waaye benn guddi nañ ci lëm jàngale ci loo xam ne nii fu ci nekk rek mën nga cee xamee sa bopp mën nga cee xamee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko te bëgg yonantu ku nekk xam na ne ci lislaam la bokk ndax laa yuminu ahadukum xata a ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain moo tax bàyyi ñas daf daan tuddee gàmmu muktamaru arbaabil mahabbati maanaam sommee bi nga xam ne ñooñ bëggeel ñoo ko moom ñooñ bëggeel yi kan ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi bëgg yonent bi mooy ñi bëgg alxuraan ñi bëgg yonent bi mooy jullikat yi ñooy oorkat yi ñooy ajkat yi ñooy joxekati asaka yi ñooy jàngkati alxuraan yi ñooy defkati lu baax yi ndax lislaam euh, pas-pas la ak jaamu yàlla waaye ak jikko yu rafet gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñëwoon pour mottali yooyu yëpp nag gàmmu dafa nekk occasion pour ñu jàllale loolu ci suñ biir nekk occasion tim pour ñu dajee ci jàmm leelante ñam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa laaj nañ ko ayul islaami afdalu ban islaam moo gën mu ne itaamu taami wa ifshaau salaami ala moo gën mu ne leexle ñam jàmm siiwal jàmm ci koo xam moo tax ak tagg yonent bi ay jikkoom moo tax Cheikh Ibrahima daf taazimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam màggal yonent bi ci bési gàmmu lay wax loolu ci bëri lu ngeen di julli ci moom ci jàng ay taggam ci dundale alala ci moom mu ne gisuñu jëf ju gën a baax loolu man ci li ma yàlla wan te xam nañ ne jullit la boo xam ne bu waxee ne ma expérience ci lislaam lii la expérience boobu ku baax ku nekk yaa ko moom ku nekk mën nga koo jëriñoo moo tax ñu ngi occasionné euh, profité ci bés boobu di oo mbooleem jullit ñi waaye di oo mbooleem l'humanité ci bés yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla daf ko yónni pour yërmande di ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel suñu bopp di ndokkeel xalifa bi di ndokkeel président Macky la di la ndokkeel yow euh, ministre euh, de l'intérieur mi nga xam ne yàlla moo la baaxee loo xam ne yàlla daf koy pareel ba pare yàlla def la ci ñiy pareel loolu yàlla daf laa bëgg a tag yàlla daf laa bëgg a fay yàlla kon nag ñu ngi lay ndokkeel ci loolu di ndokkeel mbooleem ñi nga xam ne nii ñu ngi taxaw pour ànd ak ñun ci bés boobu ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm gan ñi ñëw ci jàmm wa te bu genn gan indi ci Sénégal lu koy yàq te bu genn gan jugee Sénégal lu may dana yóbbaale li nga xam ne nii moo koy jëriñ ndax loolu rek moo tax gan ñi di xëtt frontières yi di ñëw fii nga xam ne Cheikh Ibrahima Yaram dem na ba nga xam ne xëtt na frontières yi xol yi loolu moo tax bu ootee rek nit ñi xëtt frontières yi jógee fu nekk dénkaanal ngeen ko wax ngeen ko duñ ci jaaraat dañuy ñaan yàlla rek li nga xam ne sàkku nañ ko fii te ñi ko sàkku ci ñoom ñëpp ngeen jox leen digal ku nekk taxaw na ne liñ ma digal danaa ci def li ma man jaam yéen rek la am waaye kii def dëgg-dëgg mooy yàlla alfaa'ilu xaqiqatan huwa allah kii def dëgg-dëgg mooy yàlla kon yàlla yàlla jàppandal ñëpp ba nga xam ne danañ mën a motali gàmmu gi ci li nga xam ne ngërmaande yàlla la ngërmaande yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk njëriñ boo xam ne tim dafay delluwaat ci ummatul islaamiya yëpp waaye delluwaat ci senegal delluwaat ci ñun ñëpp ñu ngi lay gërëm di gërëm tim ñu ngi am ay mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi fii ci ministère bi di liggéey fii ci njiital Abdoulaye bu ñu nekkee ci fii yéen lañuy ñuy liggéeyal ndax luñ def fii mu baax rek dem Medina duñ jàpp ne benn taalibe rek moo ko def waaye jàpp ne sa si benn liggéeykat moko def kon ñooñu ñi ngi leen leen di dénk ndax yow la ñuy liggéeyal seen turtim la ñuy gën a defar ñi ngi leen di ñaanal yàlla ñi ngi leen di jottali ak sëriñ bi di wax amin ci ñaanam yëpp di ndokkeelaat jullit ñëpp di wax la bàyyi waxoon rek hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalu bada linnaazirina jamaaluhu hilaalu rabiin fiihi jaa muhammadun فتم لنا البشرى وعم نواله comme dafa wax ne maa ngi ndokkeel Ibrahima weeram feeñ na weer wi nga xam ne taari weer woowu feeñ na comme weer wi dafa am taar ñun ñëpp war nañoo góorgóorlu ba taari weer woowu ñu ci mënta yokk duñ ko ci wàññi luñ ci mënta yokk duñ ko ci wàññi te dara du ko taaral nag lu may topp delluwaat ci jàngale yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ci lislaam bu wér delluwaat ci jikko yu baax yi ndax am na benn benn ñoo xam ne dañuy wax ne gàmmu lii wala gàmmu ñoom ñoo xam gàmmu yi nga xam ne ñoom la ñuy weddi du dara lu may leexale ñam gane la gan jàngale juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquran julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biir dimbalante te kenn manta wax lislaam lu may da wax yooyu ñu tudd yal na yàlla dimbale yàlla def jàmm ci Sénégal jàmm joo xam ne danañ xam ne jàmm la ñu ngi ñaanal président de la république benn waaye dafa waxoon ne boo duggee ci oto di ñaanal chauffeur bi ñaanaloo chauffeur bi sa bopp ngay ñaanal kon bu muccee Sénégal mooy mucc waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla tàggat ba teg ko ci yoon wi nga xam ne nii moom la Sénégal di di xaar ci moom ba mën a àggale ci Sénégal Sénégal bi nga xam ne Sénégal yépp moom lañuy gént Sénégal bu jàmm Sénégal bu démocratie Sénégal bu liber bu libre Sénégal boo xam ne jàmm daf koy matale comme ni nga xam ne moom lañ am ba léegi waruñoo nangu kenn yàq ko waruñoo dimbale kenn ku koy yàq ndax ñu bëri dañoo jàpp ne luñ bokk mooy loo xam ne ku nekk am nga yàq ko waaye luñ bokk mooy loo xam ne ku nekk mën nga cee defar waaye kenn sañu ko yàq ku nekk mën nga cee defar Sénégal ñëpp mën nañ cee defar waaye kenn sañu ko yàq yàlla bu Sénégal yàqu ci benn loxo yal na yàlla dimbale ci barke yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Niass waxoon na ne masuma ñaan yàlla ci guddi yonent bi dara lu may yàlla may na may na ma ko ñu ngi delluwaat di tawassul ci ñaanam yooyu yàlla nangu ñaan yi yëpp yàlla xool jëm ci ñun ñëpp ba ci yërmaande ak ba ci ngërmaande allahuma salli ala sayidina muhammadin fatih lima ughliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim وعلى آله حق قدر المقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا وبالشر والتعصير وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نام